sénégalaise bu football ñun tam ci ñaareelu pàcc bi dinañ wax football ak Amara Traoré a tout à l'heure bu 8h jotee incha allah. surtout ak kubéeri cin loolu lu xel mën a nangu la waaye lanspère yi ñu dégg ak euh, xooxu bu yi moom euh, xëy na gënul ndax mën nañ cee jëlee ay daan yoo xam ni dootuñu sax football. waaw loolu dëgg la ñu ngi nuyu seen auditeurs yëpp ak euh, di leen encourager encore di leen féliciter ci émission bi parce que àddina bi yëpp kenn du ko raté Euh, li ci ëpp solo mooy li nga wax rek parce que nag euh, supporter moom supporter rek la parce que bu joueur defee seen wàll dirigeant def seen wàll état def seen wàll ñoom dañu bëgg a def seen wàll mais nag ni ko Aline Cissé waxee président euh, ministre Matar Ba waxee ko supporter moom permettre nañ ko mu def lépp loo xam ne permettre na équipe ba moom mu gagné mu bañ a ëpp rek ba nga xam ne dina am ay conséquences yoo xam ne li nga def dina yàq li nga bëggoon na li nga yéene woon def donc loolu supporter Sénégal yi am nañ ci maturité defe naa l'aspect dañ doon tooñ di waxtaan rek parce que man mi wax ak yow borom tëni la am de tëni la ñu woon donc maa ngi travail ak service de sécurité yi xale yi ni ñu ko gisee gisu leen kenn ku préparé wala kenn ku ko def te nag xam nga yow genre xam na ci dara boo demee weli nga ak caa caa jaay ak ay njegeñaaw l'aspect moom da koy mën lool pour que parce que boo visé visé sa mbokk visé sa keneen koo xam ne bëggoon na jëm kooku donc lool dañ ciy yokk rek pour wane mobilisation fi ñu mais am naa yaakaar ne dinañ accompagner seen équipe la mu mën te duñ ci def loo xam ne dina yàq ëllëg dara. waaw ndax euh, luqi bëtu Mouhamed Salah loolu tamit euh, gënul euh, Georges ak Malal Junior Dia ñu ngi ci geneen wàll ga aywa Georges Malal kuy kuy dem. Eh, na du gandu yeewi bay. waaw ah, Aïcha kon noppi dalal nañ la. waaw ah, Aïcha ah, bisimilah tubarkalla kon maa ngi leen di ziar di leen gërëm bu baax baax di nuyu Mbaye Diouf Dia président ñu ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu ziar sama xarit. sama sama soppe sama doomu bàyyi nañ koy waxee rek voilà. wallaay mais lool jafe-jafe ngir jënd ticket loolu fédération sénégalaise bi naka la ko mën mënee def ak naka la ko mënee expliquer ba ticket yi depuis presque une semaine kenn mënu koo gis fu ticket yi dugg. waaw mais boo ñëwee stade bi nga xam ne ticket cinquante mille places la stade bi dem pour sécurité ñu def ci quarante cinq mille places jaarale ci internet bi pour que ñu ne Tamba Vélingara am ci droit aussi mën a jënd par internet jot nañ seen i billets. 22 000 billets yi nga xam ne 20 000 yi Sénégal fédération war jaay jaay ko 5 points de vente loolu amuñu ci crainte defe naa ni daal billets yi épuisé na nag parce que na xam nga boo amee 17 millions de sénégalais tey boo toogoon ci mbedd mi lu mu néew ne 1 million de sénégalais bëggoon nañ dem te marché ba te 45 000 places la ah dina ré di màgg euh, lu lu lu cher nag ak lu raar moom mooy précieux bi mu doon rek moo tax loolu mën ci am mais amu ci leneen loo xam ne am na ci incha allahu rabbi mais stade bi jeex na. ñi ko war a jënd doonuñu ay Maliens ay Guinéens di ngeen gis Sénégal yi mobiliser ñoo accompagner seen équipe ni mu war a incha allah. est que lii warut tax ngeen jëlee ci ab jàngat boo leen di jaayate ay billets euh, ndax ñiy jënd di jaayaat dañuy bëri te dañuy yokk prix yi. Euh, ëllëg ngeen naan kuy jëndati bu dee nit la warul jënd lu ëpp par exemple cinq tickets wala dix tickets. Euh, dix tickets. amee ah, loolu sax moo ne ci taxe bi. c'est-à-dire kiy jaay ci boo essayé woon ci plateforme mënoo jënd plus de cinq tickets. loolu say ma xam nga nag euh, ku bëgg a def lu jub ak ku bëggul def lu jub kenn mënu koo tere man dama la jox exemple bu gën a sax man Mbaye Diouf ja dañu ne boo dugalee sa numéro cinq mënoo ko passé ma jël sama juróomi doom wala juróom-benn sama ñaari jabar wala samay nangam ku ne bëgg a jënd cinq cinq da am léegi cinquante fi nga toll boogee gaaw nga ci mbir mi donc sécurité bi moom nit ñoo war a jub pour nga xam ne nag mbirum Sénégal la ku nekk bàyyi ci xel parce que mënoo def benn ba ca coupe du hmm. boo fa demoon tey di nga gis ne billet bi doon jar cent mille dañ la koy jaay un million wala un million huit cent franc loolu ñoo ci war a bàyyi xel xam ne ñi ko bëgg a seetaan yi yoruñu doole bu leen toll noonu ñu war leen mën a permettre ñu dem ko mais pexe bu ne étudier nañ ko xam nga ko xam luy lamat xam Amadou Kane xam Mbaye Diouf organisation li ñu ci daj. Mhm. xam ne lépp lu ñu mën def nañ ko amul kenn ku jënd nii ci plateforme nii en manuel plus de cinq billets. mais mbaa dirigeant yi tamit jënduñu billets yi laxas ci jaan ñoom it. loolu moo doon rek parce que dirigeant talu man mi wax ak yéen ñu ngi doog a jóge ci stade bi ba quatre heures cinq heures du matin ñu ngi ci amul benn dirigeant parce que ki koy defar aussi du jël dirigeant bi di ko jox bi parce que responsabilité am la fédération gisul xaalis encaissé wul laalul xaalis waa ji dafay jaay ci plateforme yi jaay billet yi verse ko mu ci compte bi ñun ñuy vérifier que bërki dem ba bi ñuy arrêté à trois cent cinquante millions déjà vendu par plateforme donc benn ko ko jox bu doon loolu léegi léegi koppar yooyu ngeen jaay ci billetterie bi nu ngeen ko fas yéene coacher nu ngeen koy gérer. bon loolu nag xam nga buñ ciy wax d'habitude recette de marché la recette de marché nag état dana ci investir fi ñu jox stade bu bees bi nga xam ne inauguré guñ ko woon sax réceptionné guñ ko ñu ubbil ñu ko am na ay charges yu ñu fa war service de sécurité bi nga xam ne man maa ngi liggéey ak ñoom au quotidien tous les jours muy huit cent gendarmes ak six cent policiers ku ci nekk mu ngi mu ngi ci mm-hmm. disposition maximale yi. Mm-hmm. donc lépp lu war ci marché pour sécurité bi nga xam ne moo ëpp solo ci sénégalais yi. am solo même ci égyptiens yi ñëw parce que suñu ay doomu du duñu ay nag ay ennemi ay adversaire d'un moment la. jël nañ disposition yi pour que bu pare nag ba ñu am totalité de recettes ki koy di ki ko jaay moom ci boppam muy société jottali confronté ko ak président Abdoulaye Fall bi nga xam mooy président commission des finances ñu yor kopparu gi yëpp tekki. Hmm. kooku defe naa mën nañ am xel ne li ci war nañ ko def et puis jox compte rendu bi état bi bu boobaa nag état bi na xam ne lii moo génn comme recette. ñu versé ko dans les caisses de la fédération génn charge ñoom nag autorité ñu discuter nan la mën a demee incha allahu rabbi loolu moom leeral lañ ko déjà avant ñu dugg ci mbir mi. cinquante mille places moom mooy capacité stade bi euh, ticket yi ngeen jaay yëpp fédération wax nga sànq yi nga xamante ne moom la ci jotoon yeneen ñu koy jaay ci plateforme yi ak yeneen de vente yi euh, ña nga xamante ne ñoom ñooy gan yi est-ce que am nañ ñu ñu indi hmm. allo Euh, Baye Diouf Dia dafa dafa rëcc. Euh, maa ngi lay maa ngi lay ah, dégg. Ah, ah, waaw ayca euh, Georges ayca dama ne. aha Georges. dama ne ticket capacité stade bi cinquante mille places la supporter Sénégal xam naa ñoo fay bëri ndax gan yi am na ñu ñu indaale ak ñaata lañ. waaw xam nga booy def match compétition internationale yàlla def na ñun ñoo njëkk a dem Égypte. Mhm. bi ñu demee Égypte dafa jox sénégalais fa nekk bi ñu dajeek ambassadeur mu ne ma ngeen am 1000 billets. Mhm. moo fi nekk ci 1000 sénégalais yoo mën nañ ànd ak ay sénégalais yeneen mën na nekk ay ivoiriens ay maliens mais ñoom ay supporters sénégalais lañu. Mhm. ñoo joxoon nañu fa 1000 billets donc ñoom bu ñu dellu see aussi dañu am droit bi ñu la jox nga joxaat leen ko fii mooy jox nañ leen 1000 billets xam ne ñoom égyptiens ñoom ñoo ko moom. newoon nañ sax loolu ëpp na ci ñoom nañ leen defal cinq cent donc normalement jël nañ seen cinq cent billets pour war ko mën a jaay seen nit ñi nga xam ne wala ñu may leen ko wala mm. aussi liñ ci xam ñoo ko parce que loolu FIFA loolu lay doxale mm. léegi président bi nga demee moom ngay def bi nga dellusee président ci wàllu sécurité euh, ci wàllu dugg ak génn ci wàllu organisation bi stade bi yan matukaay la fédération jël ak waa sujet yi nga xam ne mu di wax waaw mun nañoo yéggale waxtaan wi ci oto bi jatul. maa maa ngi maa ngi nii di yéeg seen. ah déet bul yéeg bul yéeg bul yéeg <laughs> <laughs> non bul yéeg yeggali ko ci oto bi mu ngoog waaw yeggali ko ci oto bi. ndax ndax euh, mi ngi noonu léegi Malal mu ngi wax euh, sécurité. Mhm. dëgg la. waaw dama ne jël nañu six cent gendarmes huit cent gendarmes. Mhm. jël six cent policiers. maanaam dañu ne policier ak gendarme yi képp koo xam ne am na billet. nga mhm. ko présenté à un kilomètre pratiquement avant sac mooy ca rond point yu mag ya mhm. am nañ ay laser yu filtré billet bi wane ne liñ la tafal ci sa billet bi ñu ko wooye hologramme ñii di ko wooye QR code mhm. bu ko liiree ba mu baax ñu lay avancé mën nga dugg tranquillement romb fa ngay jëlaat si bunt am na keneen koy xool nga continuer yéeg toog sa place jàpp sa njàmbur donc waruñu fa am file d'attente waruñu fa am buuxante waruñu fa am dara parce que ku fan liñ naan daal ku demul marché ba pour war a ci marché noonu lañ ko defee ci ci wàllu euh, nekkin bi ci biir stade bi tam parce que gisoon nañu ci inauguration ba ndox lekk ak naan tëwoon sénégalais yi ñëwoon ci biir match nga xam ne nit ñi dañuy xëy 9h dem foofu ba ngoon ndax tijji ngeen restaurant yi ci biir stade bi ak waa am nañu fanaan am nañu fanaan ndax foofu tam bu ñu fa nekkee dañu war a am ay yëf yu ñu jëfandikoo ndax loolu tam bàyyi ngeen ci xel waaw loolu aussi am na ay société yoo xam ne dañ ko defoon genre appel d'offre parce que xam nga nag boo nee stade bu bees bu ñu tijjeegul def FIFA dafay interdire ay safara di am ay yu bëri donc am na spécialité plat yi ñu d'accord ay sandwich ay shawarma ay hamburger yi nga xam ne jarul togg yu rëy. Mhm. ñu ko def nañ ay société yoo xam ñaar ñu la. ñett cinquante mille sandwich. voilà sandwich ñaata. munuma munuma munu ñaa de doon cinquante mille cent mbooloo ma fa toog nekkee cinquante mille nit da yóbbaale bosam ci saagam bu kenn du ko ko tere pour mu yóbbaale ko ñu ah, bëri ci xale yi defar nañ li ñuy yóbbu ñoom donc ñooy jënd pratiquement du du du mot sax un quart wala sab bi te ku fa jaay sant boo xam ne romb na prix bi nga xam ne moom nga daan jaay ci biti kenn du ko fa jënd ndax ku nekk waajal nga sa bopp pour dem ñee ngi seen mbuusi bay ñee ngi seen mbuusi mbiskit ak seen ndox parce que jaar na ko tey ñii war sax mooy ëpp léegi président mbaa waxu takk der yi gendarme yeeg policier yi nga xam ne ñoom loo leen wax ci la ñuy dox nu nangu laser yi gone yi ndax wax nga leen nu bàyyi xale yi ak seen ay laser non xam nga laser seetaan nga marché àll bi kenn terewu leen ko woon donc liñ ci naqari sax ñun mooy laser bu teg lee doon du am impact ba mu mais loolu service de sécurité bi seetaan nañu ko FIFA terewu ko woon égyptien ñoom ñu def ko euh, Sénégalais yi à 1000 pour cent ku ci nekk la nga am ci laser la nga am ci loo xam ne du gaañ kenn daal man ko ko utiliser ndax lañ ñu lebaloon dañ koy fay teraanga bi li président waxoon rek nañ ko teg de côté ba match yi jàll ñu doog a dellu ci mbir benn incha allah. ci ci Georges dama. non c' est <laughs> kay nangu fii dama la. xam nga ay mbir ñun ngay waar. <laughs> aywa yi nag nan lañ koy mën a contrôler. Eh, lan bi seetu yi. waaw seetu na il faut nekk professionnel maa la wax na ci dara. Mm. pour nga mën ko toll sa tribune. reflet lumière bi tàppe ji nga tàppe ko ci bëtu góor ba foofu il faut très professionnel man naam nag ko mën. ku ko mm. mën itam xam nga lu dul FIFA lu mu tere rek mooy loo xam ne day gaañaate. li ci des boo gisee égyptiens yi keroog def naa yoroon xanaa bokk <laughs> ay seetu yi nga xamante ne seetu yi euh, soxna yi di yor ci seen xot doon xot góoma nag li ñu koy waxee entre nous góoma man mi yor bokk ci sécurité bi ñu ñu nangu benn seetu bu fay parce que tranchant na te du ah, tranchant moom xott la moom waaw du ñu nangu kenn boîte maquillage ah. waaw loolu même jigéen ñi seen boîte maquillage dañ di conseil ñoom ñu bàyyi ko foofu mm-hmm. comme ça ëllëg parce que mën nañ am service de sécurité bi nag quand du sax pour ñoom rek yëngal yëngal yëngal stade bi. ministre Abdoulaye Sow defe naa ne yuuxoo bi ak yuuxu bi ak tëgg bi ak fecc beeg yuuxu bi ak yokk suñu doole suñuy joueur mhm. moo ëpp doole ay laser ak ay ay seet ci boppam te loolu je crois sénégalais ku leen xam xam ni ñu foore ci mobilisation. waa Tëngéej pare nañu waa Pikine pare nañu waa Géejawaay pare nañu waa Mbuur a ngi départ di ñëw ñëpp pare nañu defe naa ni yaakaar boo fa moytuwul sax bala ngay seet sa laser ndax dootoo ko tale ndax mhm. animation ba fa nekk yaakaar ni Sénégal yi dinañ jël defal ci terrain tey tey kenn du dégg euh, ci stade bi euh, loolu lu wér la ci wàllu football nag euh, taxawaayu gaynde yi match aller bi am nañu jàpp ni taxawaay bi baaxul ay ñetti siis ak xeet googu yow ci sa bopp ginnaaw kilifa nga ci football bi yàgg nga ci jàpp nga ni Aliou Cissé war naa soppi looloom maanaam di tegale gànn Kouyaté ak euh, euh, Nampalis waa mais xam nga xam nga xam nga Malal yàgg na ci sport bi au moins ci euh, ci tactique li ñuy waxee tactique duñ ci professionnel nag parce que suñu métier. Mhm. mais li wóor mooy booy dem bitim réew di wuti da ngay wut sa ngànnaay yu baax ba duñ la fa sonal parce que buñ la dooroon deux heures tey di ngay wut ñett wala ñeent soo fa match nii doon tey il faut nga gagner pour qualifier. Mhm. donc un point bi mu un bi mu jël foofu peut looloo ko permettre mu am ko mu mën a am qualification fii ci Ndakaaru parce que bu yóbbuwoon ñu mën a football it ñu doon la fa deux zéro wala trois du am njëriñ donc déplacement nu ak domicile équipe buy déplacé wu da bañ a jël bii yu bëri parce que nag ku mënta gagné sa dëkk sa place coupe du monde bi dañ ko war a xoolaat ci boppam am na ñu ñu fekk gagné leen gis nga li xew ci ci barrage bi nii. Mhm. donc la mu préparé woon wóor na ma ne man dina ko changé pour mën a am plus d' offensive pour mën a marqué parce nañu appliqué wu ci kanamu bal yi ak bii li ma gëm yaakaar ko mooy di ngeen gis bu dul ñeenti attaquant lu mu bon ñett ñoo xam ne am na mobilité pour mën koo jouer te loolu Alioune am na professionnel bi xam na li taxoon mu prédéfendre ji Égypte xam na li tax mu war a attaqué Dakar incha allah. ah tubarkàlla léegi euh, ci ci beneen côté bi nga xam ni sénégalais yëpp ngi ci am euh, ay yéene ak di ci def muy wàllu xonjam yi ndax tam Afrique la ñu nekk fédération bi ndax xonjam ngeen. waa non du xooñdam xooñdam moom waxu olof la defe naa ni nga ko tudd ma waxu olof yàlla moo ne ñaan leen ma may leen sant leen ma dolli mm-hmm. donc yàlla ñaan nañ yàlla sénégalais yi à l'unanimité am manko wuti ji ndam li dem yàlla may ñu coupe d'Afrique ñu sant ko bu baax parce que wàcce nañ ay kaamir ñaan nañu fu nekk ku nekk sa ñaan ñaan dugal nga ci biir manko boobu nag bu ñu ko continuer ba tey yàlla nangu ne ñii ma mayoon sant nañu ma ma dolli ñu te ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ñu tey nag ba ñu mën dem coupe du monde parce nekk champion d'Afrique nekk mm-hmm. premier en Afrique dëgg dëgg sa place mooy nga représenter sa continent africain te africain yëpp nag li ma la wax ne la sénégal sénégalais mm-hmm. ñoo supporté ji woon bii passé mm-hmm. war na la ne sénégalais yi rek nekkuñu ci mbir mi mais africain seen bopp ñoo bëgg Sénégal dem coupe du monde pour que seen même seen représentativité mën a gën a yokk loolu nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax bon borom xar fa foofa yéeg borom mm-hmm. kii yéeg borom ñëpp ku ci nekk sa gëm-gëm ñaan nañ la tàllal nañ la ay loxo pour que ñëpp dugg man mi wax ak douane la am douane la amoon douane ñu ngi ci quatorze frontières ci quatorze régions Sénégal yëpp ñëpp war naa leen dem ne ku ci nekk loo mën def ci pour que Sénégal mën cee jàll. waaw ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm. Euh, loolu. Euh, waaye nag Égypte am nañ Firawna de. <laughs> waaw Firawna moom li ci lislaam wax dafa doy sekk ci teg dafa naa ne loolu moom <laughs> nañ ko bàyyi ñi nga xam ne atte na woon Firawna déjà rek loolu am nañ yaakaar ne daal Sénégal li fi nekk mag ñu baax nekk ci diine nekk ci teraanga Firawna waruñoo mën a tiital incha allah. aywa Georges euh, xam nañ ne Aliou Cissé di entraîneur bi dana am euh, euh, na mu yebbee ay joueur am laataa ñoo dugg ci biir stade bi football ak Égypte yéen fédéraux yi ak itam ministre ba nga xamante ne yéen a ngiy liggéey ak moom loo leen dugal ci nopp gone yi. démb démb ministre des sports Matar Ba accompagné ak ministre de l'urbain de l'environnement de de l'hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow ki am na vice président premier vice président deuxième vice président la fédération dañu demoon ci inauguration hôtel bi bañ fa demee leen président na yéen delluwaat leen ngeen waxal ma message bii lion yi message bi mu wax dafa yomb teg amul complication wóolu woon nañ leen kañoon leen sant leen jox leen mission ngeen dem accomplir ko soldat nag bu demee accompli une mission dellusi jox ko beneen mission na mu fonkoon mission bu njëkk boobu jëlaate leen mission bi ngeen defa ko ci même chose tout le peuple est derrière vous li ngeen ñu defal réy li leen defaloon bi ngeen dem réy bi ngeen dellusee aussi rusuñu te ñu ngi ñaan yàlla wàkkirlu nag ñaan leen li ngeen defoon ngeen multiplier ko te xamal xale yi aussi que ne dem coupe du monde joueur ko a soxla malal moo ma ko gën a soxla man moo ko a soxla ko gën a soxla keneen tey ku leen ne woon joxe leen ku ne pour ngeen mën dem coupe du monde li ma wóor mooy kenn du manqué ñëppay joxe donc na xel yi dal ne joueurs yi moom aw ci crainte parce que yàgg naa xamante ñoom nag ñu ci bëri deux mille dix douze maa leen yóbbu Jeux olympiques ca Londres ba ñu ànd ñëw. Mhm. ba tey ñoo ànd ensemble nekk benn bloc mentalité bi ñu am ci équipe bi. mosuñoo gis équipe africaine boo xam ne demel ni ñu mel liggéey presque ay famille lañu ay mbokk lañu. Hmm. duñ ko wax mu jëm koo mais ay frère ay amitié yi dafa dëgër lool ci biir. Euh, euh, parce que mise en place bi terminé na déjà avec gendarmerie ak police à dix heures ku di nga tranquille jot nga julli sa tisbaar. tàkkusaan nga anticipé tàkkusaan seize heures trente dal li sa équipe tranquillement disposition sécuritaire yëpp mot nañu nañu dem ak jàmm dellu see jàmm amal ndam ak jàmm. incha allah laajal ma ko parking bi pour taskatu xabaar yi nga xam ne dañoo seen i woto war ci def matériel indi ko te amuñu macaron. loolu la ñu wax démb démb ci guddi lañ jot macaron yëpp c'est vrai que na. mais ñëpp ñu am droit macaron bala ngay jege stade bi nañ la jox sa macaron muy presse bi yéen am ngeen représentant ni mu jëlee woon seen badge yi dina jël tout l'ensemble des macarons force de sécurité boo ko jënd am nga ci ci biti defe nañ suffisamment d' espace pour que ku bëgg gaare ci biti ak sécurité nga gaare fa donc du am benn contrainte sécuritaire incha jërëjëf Mbaye Diouf Dia euh, jërëjëf euh, Georges ak Malal euh, ñu ngi ziar soxna naata ak ñi mu àndal ca geneen wàll ga ñu yendu ak jàmm dina nal gaynde yi ndam Boubacar Fall Jean Boubacar Diop Malal Junior Diagne ci gan bi on espère bien que dinañ am ndam euh, de retour sur le plateau pour dernière partie Info Matin léegi léegi euh, dañuy dem euh, ci xibaar yi ñu ànd ci ak Ibou Diouf dama fay commandé woon benn baillon pour Chérif Dia fan la toll. il faut il faut il faut ma yeew gémmiñ gi. mais mais bi muy wax nii. moom équipe nationale tàggatoo na ñoom moom. maillot bi day symboliser ñaari génération. génération 2002 ba demoon coupe du monde. boobu Kaala te ca teertu ba sax bi fi demaat coupe du monde ñuy ñaanal bii mu dem. coupe du monde wallaahi te ca teertu ba sax nag El Hadj Malick damaa dox jour boobu Kennedy laa jógee ñu wàcc man ak sama copine. ah ñu jël car wax dem ba aéroport ni mu ñu dox ba sonn retour bi gisuma sax oto bu ma indi. jour boobu damaa guddee damaa yaakaaru ni ma ñëwee sama yaay dina ma dóor jour boobu waaye xam naa daf maa xool sax yërëm ma moo a moom ci boppam dóoru ma <laughs> turu Sénégal ci coupe du monde waaw voilà c'est ah, ça donc du ko topp aja ci bu